Mamadou Wane maa ngi lay nuyu. maa ngi delloo nuyoo bi. <laughs> Euh, Mamadou nga nekk euh, sociologue euh, expert en analyse politique et sociale déjà fan yi gis nga crime yi bari na trop ci Sénégal ñi ñuy faat ay faat yu ñaaw a ñaaw en tant que sociologue lan moo mën a expliquer criminalité bi au Sénégal. waaw lu ma doon wax rek ci soo gisee lii am mooy soo xoolee adduna bi yëpp. lu mel ni dafa am soppeeku bu am nga xam ne mun nañ ko jàpp ci euh, dëkk yu mag yi parce que dëkk yi nga xam ne ñëpp a fay dajoo dajale plutôt ñii am ñi amul ñii ñàkk ñii nga xam ne bokk ñu leen yare ñii mun nañ muñ ñeneen mënuñu ñu xool ne même ci ñenn yi dañ leen di sudee dañ leen di tàggat ci diine lu leen di njëkk wax ne mooy tudd c'est sacré yàlla mooy sàkk nit yàlla mooy mooy mooy jël mooy mooy mooy dogalu yàlla lu mun a am dogalu yàlla la dañ nañ ko ba nit ci génn àdduna dañuy wax ni dogalu yàlla la dégg ñu yare nit yi nga xam ne war nañu ak nu ñu mën a mel war nañu euh, dellu ci yàlla ñu xool ñu bari amuñu comportement boobu ñu xool éducation religieuse bi aussi néew ma euh, euh, daal néew ma néew ma Euh, dafa dafa nërmeelu ba am na ñi nga xam ne ñu bari taxuleen ñu modifier seen comportement ñàkk bi somage euh, bi pauvreté bi nga nekk ci jamono ba nga xam ne euh, alal alal dañ koy woy <laughs> am alal tekki yaakaar ni ki matériel la ñuy tekki dem na ba nga xam ne ñenn ñi aussi nga xam ne suñu tekkiwul soit ñu jël di di jëf drogue ak yooyu bon crime crime yu gën a ñu ñu euh, euh, tax nit ñi di wax. Hmm. du crime passionnel di yi bien que am na war nañ xool ci saytu crime yi nga xam ne yan mooy cause yi yan mooy crime passionnel yan mooy crime nga xam ne agression la yan mooy soo ko xoolee mais si bari ay agression pour nangu la nga am lii la soo ko xoolee bu baax soo xoolee bu baax mooy aussi ci service de sécurité yi seen fonction nga xam ne prévention lay doon ja foofu aussi dafa dafa topp du ko daal ah. nga xool ne aussi ah, même mairie yi dañuy wax man def daf ma jaaxal mairie yi amul bureau social mairie di jël travailleurs sociaux ah. mairie amul contrat yu muy def ay ASC bu dul joxe xaalis bi def ay nawetaan football matin man contre man football ak yooyu mais quand aussi war nañu def ay contrat de jeune avec les travailleurs sociaux prévention violence à base communautaire yooyu amul war nañ aussi religieux yi véritablement di jël seen xutba di ak muy ak seen prêche yi seen prêche yi di ko di ko di ko di fàttaliku nit ñi di tàggat nit ñi ci ci ci nga xam ne ci diine yi la war nan la ñuy préserver su loolu situation muy fii muy France muy partout États-Unis muy partout violence violence yi xam ne day indi meurtre violence urbaine ah bu ànd ak bakkan jël bakkanu nit day gën di di di di di law moo tax politique de prévention moo ci lu gën am maanaa ñan nga quartier yi nga xam ne les dañuy drogué wu ah, ba nekk ci yenn dépendance nan la ñuy fexee ba récupérer jeunes yooyu nan la ñuy fexee ba bañ di gën a moyen médiatiser ah, violence violence mm-hmm. yenn sport yi am violence war nañ xool nan la ñuy fexee ah, ba peut-être garder le côté de ce sport là mais def ay tout le temps éducation à la non violence éducation à la non léegi euh, aussi. oui parents yi aussi il faut que ñu consacré wu aussi ci seen doom yi. éducation parentale dafa am solo. l'état dafa war un programme euh, euh, de prévention et de lutte contre les violences contre les violences c'est fondamental voilà Mm. mais euh, est-ce que Mamadou Wane gis nañ ñu bari ci askan wi criminalité yu euh, su baree euh, suñ leen laajee dañuy wax ni nañu voter une loi peine de mort daal nañu andiwaat peine de mort ku faat te tay ko aussi ñu faat la jàpp nañ loolu rek moo mën a wàññi faat yu bari yi am est-ce que yow d'accord nga ci loolu waaw wala déet. <laughs> néanmoins ci sur le plan sociologique am na par exemple fi nga xam ne dana dana dissuader mais delluwaat ci peine de mort taxul ñu réglé am na pays yi nga xam ne am na peine de mort te taxul ah, ba léegi euh, rey yaa ngi rey rey rey yaa ngi soo ko xoolee bu baax ah, soo ko xoolee bu baax ah, même aux États-Unis am na fi nga xam ne foofu yenn yenn yenn yenn yenn na la tudd yenn état peine de mort am na mais est-ce que peine de mort état fu mu am ni ak état yi nga xam ne amul peine de mort euh, fan la fan la fan la fan la euh, fan la donc il faut ñu xool loolu et puis nit ñi ragalatuñu dee nit ñi ragalatuñu dee am na ñoo xam ne dañu wax ne du ñàkk damay damay wuti damay si nit jël bakkanu nit ah waroo ko def <laughs> dégg mais da wax ne xëy na man su may def xam nga nit kuy rey nit wax ne su may rey dañ may jàpp yaakaar ne ñu ci bari bokk dañ yaakaar ne daañu rëcc am na ne te seen bakkan wax ne adduna amuñu ci dara donc sàmm seen bakkan su leen tàggatul ci religion pour wone yàlla bu mu sacré bakkan dañuy jaay seen bakkan xam nga ne moom su nga ne da dem ci géej gi mu wóor leen ne chaque jour ñu ñu dem ci géej gi am ñuy dee na nga continuer dem ci géej gi bay wax ne euh, Barça ou Barça loolu ñooñu peine de mort mënu leen di siyaade peine de mort mënu leen di siyaade ci man dama yaakaar ne war nañ fexe ba nga xam ne programme yi ñuy def ci école yi ci daara yi partout ñu jugal ci éducation à la non violence éducation à la non violence wane mm-hmm. bakkanu nit ñu mu mu jël bakkanu nit euh, war nañu fexe bo won nu li nga xam ne ak ñàkk ñàkk ak situation boobu mën a nekk wala jël bakkanu Euh, Mamadou Wane ñu laaj la aussi ci sortie bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko euh, récemment di dalaat bu baax a baax ci kaw opposition bi euh, jàpp na ne daal opposition bi fi nekk ñemewuñu te képp koo xam ne yëngu nga wala yëngal duñ la may dara en tout cas naka nga gisee déclaration ci wàllum politique ban jàngat nga si am. xam ci wàllum politique discours politique danga koy saytu. ci ban contexte la ko waxee ak man la ko waxee dafa ko waxee en tant que chef de parti bi nga xam ne ah ah <laughs> dem fekk na bu lu nekk ah pour ah faagaagal parti boobu dem nañ ba tere ko moom ci boppam mu jàppoo ko ki nga xam ne moo doon secrétaire général du parti. ñu yaate kooku ah peut-être que suñ ko jàppul mun na mun na ko wuutu kooku tam ñu jàpp ko. ñu jàpp ay junni junni junni seen militant seen xal am na seen militant yi nga xam ne wàcc na ñeneen nga xam ne peut-être duñ seen militant mais moom lañu àndaloon ah rey dañ leen ah. am na ñoo xam ne jaral na nañ leen que ba jaay seen bakkan ñenn ñi blessé à vie donc ñu dem malgré tout ça ñu xeex di xeex di xeex ba ñu pouvoir li yi nga xam ne mosu fi am <laughs> opposition gagné dès le premier tour contre le pouvoir qui a organisé élection yi nga xam ne ñoo organisé cinquante quatre pour cent ci ñu voté ci ñu voté am ñu bëri tey si si dañ leen xañ surtout jeunes yi ñu voté suñu wote woon dana ëpp ñu kooku moo yore ce à nous appelons en démocratie légitimité ils ont la légalité et la légitimité de s'exprimer moom c'est un leader hein c'est un leader les dernières années décennies yi passées man à part Ablaye Wade sur le plan du travail sociologique man lu ma intéressé ah ñàkk jëy leadership ñi nga xam ne ci classe politique dañu leadership moom ak Ablaye Wade ñoo gën a ci leadership ci leadership kooku moom ça va rester man bi yaakaar naa ne à mon avis moom démocrate la moom démocrate la waxul c' est aussi ñun kii su waxee rek ñu génne koo gën par exemple xëcc ko ñu fi mer nit non non non lu wax li si dafa leer l' opposition dafa dans toute démocratie opposition dafa exister mais opposition aussi dafa am règle dafa am règle ñu waruñu topp tubaab yi xoolal lu xew États-Unis démb laa gis ne bon les kii euh, nga baal ma ma jël ma exemple bi. Hmm. Trump ki nga xam ne foofu la ñuy wax ni mooy démocratie mooy modèle démocratie lu nekk la yekk ndaw aussi dem na ba ne criminel la su neen ko élire élire ngeen ki nga xam ne comme euh, ba mu nekkee procureur moo bàyyi criminel yi c'est-à-dire politique aussi dañ ci war a dugg ak diine dañ ci war a dugg ak yenn valeurs socioculturelles hmm. valeurs socioculturelles mooy doo sos hmm. man politicien buy sos ah soxlatuma ko c'est-à-dire perte na point ci leadership. d'accord nit sooy opposé ci mën naa opposé wu ci politique am lu mu proposé lu mu proposé ñoom nee nañ indi nañ seen seen projet souveraineté économique yow d'accord nga ou d'accord génn ci CFA bi est-ce que d'accord nga ou d'accord ñu renégocier tous les contrats yu Sénégal passé d'accord nga ou d'accord reddition des comptes d' accord ñu d' accord mais yow tous les jours nga wax soo jógee fii wax saako jiw man te non yooyu non il faut arrêter il faut arrêter man opposition boobu dañ ko soxlawul en démocratie. Mhm. merci beaucoup. jërëjëf. Mhm. donc euh, ñu ngi lay remercier bu baax a baax Mamadou Wane voilà ñuy fàttali ni Mamadou Wane euh, sociologue nga nekk expert en analyse politique et sociale en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax ci disponibilité bi <laughs> jërëjëf merci